abonnez vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes ça se met ngeen di am ay xibaar. dal leen ak de FTTV Sénégal qui est Aline Sall nekk rakk président Macky Sall qui bañ ko gañee ci élection locale yi yëkkati woon na ay kàddu daal di xamal Sénégalais yi que ne bu ko Ahmed Aïdara demee ba mën a gañe biir Géejawaay loolee lu ko sabab du lenn lu dul que ci biir parti bii de APR daa am ñu ko fa bañ di ko xeex ci suuf te ñooñee dina génne benn liste daal di wax seeni tur list boobee kii di Alioune Sall waxoon na ko jébal Sénégalais yi nag mujjuñ koo gis waaye ginnaaw loolee lancé woon na benn mouvement daal di koy dippee renfort rencontre national des forces républicaines pour le travail renfort boobee mu lancé woon na en 2022 ginnaaw ba mu amee jël ca géejawaay kii di alin Sall toog na ñaari at ginnaaw loolee soog koo lancé wat li ni mel ci di Alioune Sall moo ko doon amal démb ca raison ba ca Kolda ndax ne foofee la dal di am base ngir mouvement boobee si li ni mel kàddu yu kii di Alioune Sall yëkkati waat rek mooy que ne ci biir parti bii di APR ci élection locale yi ñu génn daa am ñu ko fa doon xeex ba mënut woon a liggéeyal kii di président Macky Sall nee nag ci élection présidentielle ñu jëm du bàyyi kenn ci biir parti bii di APR di ko xeex ba du daal di liggéeyal kii di Amadou Ba mi nga xam ne ne moom la kii di président Macky Sall daal di tàmmu ngir kookee daal di nekk seen candidat pour élection présidentielle 2024 ñi jëm kàddu yu ni mel la kii di Aline Sall daal di wax di xamal Sénégalais yi que ne ci biir parti bii di APR daa am ñu ko fa bañ te ñooñee ñoo koy tere mu liggéeyal kii di président Macky Sall abonnez-vous sur notre chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes Ça, se ne ngeen di